Euh, am na ay bon li ngeen def c'est c'est très noble et puis louable aussi parce que xale moom bon bu fekkee ne da nga si euh, xaaroo si dara ba pare dafa nekk en situation boo xamante ne dafa compliqué nga nga accueillir ko pour tàggat ko euh, pour pour dara c'est c'est toujours intéressant bon benn bi moom mooy bu fekkee ne ngeen ko former et après bu peut-être finalité bi fan lay fan lay fan lay bon amoo peut-être loolu ne boo man même bëggoon naa nga tontu si si loolu peut-être bu fekkee dañ ko former ba pare après est-ce que parce que yaa ngi doon wax ne am na ñoo xamante ne dañ leen di former ba pare mais après peut-être mën nañu delluwaat ci lu ñu nekkoon voilà est-ce que am na benn suivi après su fekkee yéen yéen a ngi si benn kër yéen koy tàggat affaire yooyu noonu benn suivi après nga xamante ne xale bi boo leen ko former ba pare dina nekk si loxo yu wóor ba du tabiwaat ci difficulté yi nga xamante ni ci la nekkoon xam nga euh, ñun li ñu wutaleeg yenn association yi ñun euh, on fait euh, du long terme maanaam xale bi mun nañ ko gunge gunge bu ñu koy jëlee ci mbedd bi ba ba muy ba ba muy am liggéey ba muy nekk dans la euh, réinsertion professionnelle mm-hmm. dañ koy dañ koy def am nañ ci ay cas yu bëri yoo xam ne euh, dañ ko jëlee ci mbedd bi mm-hmm. mu jàng élémentaire ci ñun après ñu orienté ko CM mais day des ci biir ci biir centre bi bu xëyee jàng yi wàcc ñëw centre ba ba bac mu continuer de centre ba après euh, am na ñoo xam ne avec certains partenaires am nañu chance ñu am ay bourses Maroc wala affaire wala kenn am na kenn koo xam ne sax certainement euh, mu mu mu ngi seetaan moom mu ngi Maroc. Mm-hmm. Moussa la tudd moom ci mbedd bi lañ ko jëlee aussi mm-hmm. euh, tàggat ko gunge ko gunge ko gunge ko ba ba muy am baccalauréat am xam nga dem université après foofu mu am bourse. loolu mu ngi nekk ak yéen. ñun léegi nag am na ñoo xam ne euh, parce que finalité bi comme ni mu ko waxee nekkul xale bi des indéfiniment centre ba. parce que voilà voilà donc xale bi. après nombre voilà ñun li ñuy li ñuy gënal mooy xale bi bu nekkee ak ñun benn diir. Mhm. bu mun a mu mun a dellu kë euh, këram. mën a mën fa toog surtout. mën fa toog mais loolu noonu euh, dafa laaj liggéey bu bu bu bu bu yàgg tuuti mais bu ñu demee ba xale bi stabiliser parce que procédure bi ça se passe comment euh, xale bi premier premier moment yi buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko récupérer ci mbedd bi dañuy dem ci juge bi. juge des mineurs mu jox ñu ordonnance de garde provisoire parce que doomu jàmbur doo ko jël noonu rek même bu fekkee da nga koy aar sax. Mhm. jël ko rek dugal ko ko bëgg a aar sax voilà très bien donc doo fekk xale bi ci mbedd bi rek daxañ dugal sa kër ne da ko bëgg a aar loolu enlèvement la. donc boo ko jëlee comme xam nañ am nañu ay kayit xam nañu association lañu boo xam ne day œuvre ci loolu da ngay dem gis juge bi ne ko j'ai récupéré un enfant jox ko ay parce que da def enquête de routine ba pare jox ko éléments yi mu soxla yëpp. Mhm. léegi juge bi délivrer la lu ñu tuddee ordonnance de garde provisoire en attendant ngay ngay ñu retrouver famille bi léegi bu ñu famille bi après dafa amaat beneen procédure bu ci am xale bi suñ ko stabiliser ba pare mhm, mhm. Euh, ba mu ba mu commencé jàng ak ak accord parents yi dañuy commencé di dem euh, par fête wala vacances mhm. dañ koy jëkk yóbbu période d'essai mu dellu këram may ko peut-être Euh, une semaine. Mm. ñu xool bu demee une semaine bi ba semaine bi jeex xale bi si boppam bëgg a prolonger kon commencé na gisaat boppam si biir kër gi mais du tee dañ koy delloosi. prochaine vacances wala prochaine occasion ñu bàyyi ko mu yóbbu ko bii fa pour un mois par exemple. Mm-hmm. su fekkee tout un mois te xale bi toog na fa te. amul problème. voilà amul problème euh, fàqul. Mm-hmm. Euh, euh, réclamé wul ne dafa bëgg dafa bëgg dafa bëgg dellu centre ba wala dafa bëgg génn kër gi. mu normal mu normal mm-hmm. bu école ubbiwaatee dañ koy indi mooy eggale kiyam yeneen vacances yi ñu wat ko pour deux mois ou pour trois mois. progressivement progressivement. Mm-hmm. bu demee nag ba xale bi ci boppam demander à rester en famille loolu. Mm-hmm. ñun euh, procédure normale noonu la war a demee. noonu la ñuy bëgg léegi bu ñu yeggee foofu noonu lu teye xale bi day am toujours lu ñu tuddee suivi. cest que ñun chaque mois dañuy wootee kër ga laaj parent bi xale bi naka la kii voilà ñu xam naka comportement naka la évoluer et cetera bu amul problème après ngi chaque trois mois chaque trimestre dañuy yónni benn ngit mu dem ci famille bi mhm. euh, sur le terrain mu def enquête am ci boppam xool ndax liñ koy wax suñu saa yi ñu wootee méngoo nag li am réellement. ndax xale bi mu ngi en toujours en famille et cetera et cetera. man fu ma fu ma bëggoon ñëw ak yow déjà dañuy saluer